yi nga xam ne ni réewum Sénégal moo ngi bëgg sukkaliku faaw rek mu am ay góor ak i jigéen yi nga xam ne nii ñooy dox ngir loole mën a antu waaye ngir loolee mën a yomb faaw rek ñu lamboo ak jikko yi fi maam bàyyi woon. ndaxte réew bu bëggee jëm kanam jikko yëpp la ñu tàggataat jikko bu rafet wala jikko bu baax lu ñuy lu ñuy suuxat la lu ñuy teg ci ndaw bi la du da nga koy judduwaale toog déedéet mais dañ koy def ci yow. ngir tàggat ma réew yi ci seen nekkin ci biir réew mi moo taxoon ñu indi service civique national. service civique dafa bokk ci ànd ci ci ci pàcc yi nga xam ne dañ ciy tàggat ndaw yi wala ñu ñu ciy tàggat pour delloo si jikko yi am réew mu mënuñ ci def dara loo xam ne dina ko jëmale kanam bu dee jikko yu baaxut. ci njëlbeen ba ñu dénkoon ko primature balaa ñu ko jox armée ak ministère de la jeunesse muy waaj a delluwaat ci kilifteefu primature ngir gën a mën a am dayoo. xëy na nguur gi dañoo xalaat ne. alors bu ñu ko joxee da joxee dayoom moom dina mën a lëkkaloo ak yeneen ministères yi ndax la lu wax transversalité moom dafa dafa dafay jéggaani war a mën a liggéey secteur yëpp. gannaaw coppite jikko yi nga xam ne ni moom la ñuy nemmeeku fan yi service civique national ak ña nga xam ne ni ñoom ñoo fa ne woon ci at yu weesu bëgg a dox ngir indiwaat jikko yu baax am na loo xamee ni que ni am nañ ko yàlla dénk nañu ko ci expérience. Euh, ci xam-xam bu ñu àndee ak euh, service civique ak autorité yi danañ mën a euh, leeralal xale yi ba nga xamee ni que ni li garab gi meññ danañ ko mën a jëfandikoo réew mi jëfandikoo ko loolu yëpp mu nekk njëriñ pour askan bi góor ak i jigéen yi nga xam ne ni ñoom ñooy yeewoo ci biir réew mi moo ëpp solo bépp alal bi nga xam ne ni mën nañ koo jëlee bitim réew waaye loolee day fekk ba ñoom ñooñu le ñu mën a am ay jikko yu baax yi tax ba ñu tabax seen réew ci jàmm ak salaam